si Abdou Lahad Ka ci ci ci turu commune bi euh, ma teewal Hizbut Tarqiyyah ak ay jëwriñ yu bari ci biir Hizbut tubaa Touba ca kanam it dafa mel ni ñoom itam desewuñu dara ñu ñëw ànd àndin woo xam ne ba nga ñu joxee ndigal ak bisub tey tawféexi Sëñ Touba am na ci ñu doon liggéey na ak juróomi commission juróomi commission yoo xam ne li jàmpoon mooy fexe ba ndox mi génn ci kër yi ak fexe ba tàmbalee yóbbu ndimbal yi ñu dem ci nit ñi ñaari objectif yooyu lañu tegoon suñu kanam euh, di ci dox euh, ba fi ñu toll nii taxawal nañ juróom benn euh, magasin yoo xamante ne bu ci ne sol nañ ko tàmbali nañoo séddale ci xeble yi nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy juróom benn ci ci ci ci mooy ñeenti boxu dëkk bi leneen li ci desit mooy fexe ndox mi génn ci kër yi noo ngi ci liggéey boobu léegi ci pompe yi Euh, léeg-léeg doon nañ toll sax foo xam ne dañuy yaakaar ne war nañoo dolliwaat ay ay ay ndax mbir pour mën a pour mën dimbali nit ñi waaye lu ñu xalaat rek day mel Sëriñ Tuubaa da koy indi loolu wane na ne kon euh, taxawaay bi ci wàllu génne ndox mi euh, waa dëkk bi ñoo ko ànd ak ñoom équipe équipe technique boo xam ne muy waa Touba ca kanam muy waa commune bi muy waa waa waa Hizbut Tarqiyyah ak tamit ndawi dëkk bi bare na ci ñoo xam ne takku nañu taxaw noo xam ne dañuy ànd ak ñoom liggéey bi ndox mi yàlla def na mu ngi wàññeeku barab yi yi mu gën a jafee rek xëy na mooy barab yoo xamante ne day yoonu ndox te ñu ànd ko sapeur te boo ko génnee doo xam foo koy yóbbu loolu moom mooy mooy waral ñu koy xool ak di fexee réguler diggante fële nga xam ne mooy Kër Ñang ngir yëf yi bañ a amee doole noo xam ne day gàllankoor wax bi ñu doxee ci loolu nag nga xam ne mooy ñaari farate yi jëkkoon muy génne ndox mi ak euh, tàmbalee seddalee dund bi ba dox tuuti dafa am leneen loo xam ne daf ñoo dab mooy nan lañuy ñuy fexe ba lu mel nii tamit bañ a amaat lépp dëppoo sa ndigal loolu la ñu xam ne kon xalaat du mën a ñàkk ak experts yi nga xam ne naka jekk dañoo nekk ci yoonu murit waaye kenn ku ne daan liggéey ci sa wet jot na kon ginnaaw sëñ bi boole nañu ñu boole sunuy xalaat mu doon benn loolu itam ci yow mi la bàyyi ko euh, kon kon kon bi ñu xalaatee loolu démb lañ doon def ndaje mi jëkk ci indi ñu bàyyi ko ci Touba ci kanam seen i borom xam-xam yoo xam ne yàgg nañ cee liggéey indi ñoo xam ne ñu ngi bàyyi ci commune bi indi tamit ñoo xam ne ñu ngi bàyyi ko hizbut waaye nag dolli ci ñaari kuréel yoo xam ne ku ne xam na ne ay boroomi xam-xam la dajale boo nee Touba xepp ñoom yàgg nañ liggéey ci loolu te dara ump la ci ndax luñ ci mës a defit dañ la koy indil euh, waa tamit waa waa jabha di kuréel boo xam ne si Muntaxa moo moo moo leen utaloon aw tur di ñoo xam ne ànd nañu moom ci université bi ba liggéey bi étape bu ci ne ñu def ca loo xamante ne mooy wane ne yoonu murit expertise bi am na njëriñ ngir sëriñ bi liñ koy liggéeyal mu am qualité loolu kon ñoom lañ dajale woon muy juróomi kuréel ñu daje fi ak ñan nat ñoo xam ne seen yéene ak seen xam-xam lañ am rek ñëw dégg ko ñëw ànd ko ñun tey nag ñoom dañoo tàmbali woon seen liggéey ngir li ñu tuddee plan d'urgence bi nga xam ne fi ñu toll ni war nañoo wax lu tax bu déwénee jafe-jafe bi bañ a amaat te li ñuy defee ñu bañ koo defee noo xamante ne day mel ni dañoo jàpp ne dañoo yor suñu état wu bopp mel ni que euh, du ñu liggéeyandoo ak structure yi nga xam ne état bi moo leen fi teg ñuy liggéey loolu ndax foofu boo fa demoon état bi dong nga fay fekk kon loolu moo tax li ñuy def dañuy fexe ba techniciens yi liggéey seen liggéey ñu indil la ko la nga xam ne tamit état moo koy def moom mu def ko buñ ko boolee mu doon loo xam ne Tuubaa ñu ko mën a jëriñoo commission stratégique lañ ko tuddee boo xam ne mairie da ciy joxe juróomi nit isbu tarxiya joxe ci juróomi tubaa ci kanam joxe ci juróomi nit tubaa xëpp joxe ci juróomi nit jabha joxe ci juróomi nit loola bu lii amutoon kenn ku ne ma nga ne di yëngu te ni ñu war a lëkkaloo amutoon kon suñu suñu borom dimbalee ba ñu lëkkaloo te lépp ñu ne buñ fi bawoo ak luñ mën a xalaat nañ xam ne mairie bi moom moo jabote ñëpp ñu am système bu ñuy teg di mu jëm ci ndox mi urgence bi ñu boole tey mooy ndoxum wal mi ñu ne ñi ne ci ndox mi ni ko sëñ bi waxee nañ leen fa génne dina leen wutal fu nu ne ñu wone yoonu ndox yi ba kenn dootu fa ne ndox mi mën a wal tali bu ko téye ñu dog ko mu ron di dox jëm ci saalumu dëkk bi bu ko defee ñii muy gede muy suraak muy muy daaru euh, minan muy muy muy xayra bërëb yi nga xam ne yëpp di kër ñang ñu fexe ba yooni wal yooyu te ngeen gis ngiraa neen nam ko def daa danoo woon fa ngiraa neen dëgg-dëgg sama yoon fii la ca kaw sara noonu la ñu ko wone ca pencu maam jaara noonu la ñu ko wone kon ñun dañ ne nañ bàyyi pompe bi du ñu génne ci dëkk bi mënoo am dëkku un deux millions ñuy pompe seenum ak yaatuwaay bi ñu continuer di yaatu ñu koy pompe li nga xam ne science moom la joxe dala ne ndoxum wal ak ndoxum yàqu ci kër fexeel ba jaarale ko ni suñ borom tëggee mbartalam yi foo ko mën a joyanti boo demee bu mënta dem nag nga pompe mu romb loola nga bawaat ko mu dem kon xam-xam boobu lañu lëkkaloo nii ngir dox ci démb bi kuréel gi demee ci sëñ Bas dafa xam ne nañ dox ci urgence lu ngeen mën a xalaat dafa am lu tembare mooy ndox mi ball ak ñii ne ci biir ndox loolu tënk nañ ko ba fi mu ne bu ñu génnoon tey mën nañoo jël dossier nekk ko jàpp kenn ku ne ca xam-xamam fa jëm li ñuy wax pool group def nañ ko ñuy dox ci urbaniste ak xam-xam yani mel ñu boole leen jël kilifa teg seen kanam ñiy dox ci assainissement hydraulique ñu boole leen kay kilifa ga ñu teg seen kanam euh, infrastructure génie civil kay kilifa ñu teg seen kanam environnement ñuy kay kilifa ñu teg seen kanam euh, géotechnique euh, ak topographie géomatique kay ñu boole leen kay kilifa ñu teg seen kanam léegi ñun li ñuy li ñuy coordonné ñooñu ci wàllu technique ndax loolu day dellu dañuy delloo ci bureau d'étude ni muy doxe ay département lay doon nekkul ne ñii bu ñu xasee def pul ku ne day toog fa nga toog benn liggéey bu jógee lu mu soxla ci ñii ñu tudd ci spécialité ñuy àndandoo liggéey liggéey boobu mooy tax mu matale noonu la liggéey tàmbali nañ ko ba mën nañoo wone dara ci ndoxum wal mi tàmbali nañ ko ba mën nañoo wone dara tënk ci ndoxum naan mi tàmbali na ba corniche u Cheikh Abdoul Ahad bi nuñ koy jëfandikoo ba mu am transport en site propre moo xam BRT moo xam lu mën a doon ba tram yeeg yooyu di jaar ñëw ci jumaa ji yooyu tënk nañ ko ba melal ko ba téye ko الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه زوج الردوان والتمكين نجد نيو بوك جولي جيب اك بوك طالبي دي جيغولو تي كادو جي ندا خمنا تشون يو بري فندي موكو اندي دي لين جوتلي كادو نيو كادو تيانت ان غيرم yu bàyyi ko ci Cheikh mu taxa mi nga xam ne moo fi jëmmi Serigne tey ci kaw suuf di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak biir ba motti mboolem li mu bëgg liggéey Serigne di xam le ne it laa tafaaloo shay'an bi xayri izni fal iznu sartun fi xaburi sha'ni bi ci guddi rek ginnaaw ba ngeen fa jot na ma téléphone ci. mbir yi ñu doon waxtaane ma tàmbali ko nett ne ko ñëwoon ngeen fi mu ci lool nag ne ma daal li ma soxla rek moo yitte ji ji gis naa ko ci moo tax bu ma na nga xam daal dara lu ma gën a jóor yitte jooju amut mooy seen seen daje bi tey fii ne daal lii sama lii sama itti dëgg dëgg dëgg dëgg ndax sumb yu bari na ndax xam naa am sumb jumaa ji waaye am naa dëkk bi it dama ci am yeneen sumb bu ma ci bëgg a def loola nag dama bëgg nga jiitu ci ànd ceeg borom xam-xam yi murid yi nga xam ne yëgowuñ wallahi azim ndax Sëñ Tuubaa tëliwul dara loo ne sëñ bi am na ko kon ne lii gën a nekk sama iti baatit bi Sëñ Tuubaa aar na ko noppi na ci waaye saahir si nag laa bëgg fu borom xam-xam murid yi ñu liggéey ci tàmbalee ko nag ci jumaa ji muy wër ba fu war a àgg mu àgg fa loolu loolu moom du du sama xalaat du xalaatu kenn loolu ndigalu sëñ bi la ma ne ko nag yàlla def na sax ñoom amoon nañ xalaat ñëw fi ñëw gaaw mu ne kon loolu daal mooy itte ji ma gën a ñor na nga ko def nag yitte te te jiitu yi taxaw ci seen kanam ngeen ñu fexe daal tàmbalee ko ci jumaa ji muy wër ba ba ba ba fépp am sécurité te fuñ ci weesu mu doon loo xam duñ ci dellusiwaat suñ moom foofu la ci waxoon kon loolu moom yéen jàpp leen ne li ëpp solo ndax xalaat baax na waaye xalaat moom la ci ëpp solo. mooy ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa lim xalaatal boppam bokkut ak ñun ñi ñëpp li ñu xalaat ñun mën nañoo xalaat ci xalaati adduna rek wala lu jub ci suñu xel waaye bu dee lu jóge ci moom rek ma ci am moo tax nag sama xel di di door dal. blaar ke mi mën na at woon naa ko ndax boo jaaxle woon naa ci nab bi ne ko nag commune bi defub itit fexal na fexal ba defal ñu ititub li wër jumaa ji waa ci kanam it ñëwoon jamono yu barax amon ci xalaat ci resu bi waa Touba ci xepit amon na ci xalaat waaye nag li nga xam ne mooy li ma gagloo woon mooy murit bu ne da ngay am sa xalaatu bopp daal di sos sa kuréelu bopp loolu lu sotti du lijjanti mbir da sëñ bi daal waxoon daa waxoon ne ay nit buñ seqi bir balañ ko balañ ko mën a jariñu faw ñu takk ba mu def ne say ñu doo caa mën a jariñu doo caa mën a jariñu lu kuréel yi bari bari dañoo war dajaloo buñ dajaloo wut sëñ bi du ci mën a sottal dara man mii mu doxale seen seen diggéey yéen itam def mooy di diglu rek mu jàll ndax kii di kii day dikk indi xalaat bi kii indi xalaat bi xalaat yi yoo te ñun du ñuy ingénieur xamuñu am na ci la mënuñ ko xam loo xam-xam na ci la ko xam kon nag yéen ñi ko seq eh, jër te gaawtoo donte fii ak la sax ci gën a jàmp daal mooy fexe ba li war jumaa ji moom ñu aar ko ñàkk tasin bi ci biir waxam wax na ma ne nañ fexe ba tàmbalee ci jumaa ji di dem fuñ ci am assainissement ndox mu baax ba noppi ñu fex ko ba def ko ay xam naa ay dal la bëgg wax ba suuf dootu fa amati nee na nañ ko tàmbalee jumaa ji ba mu wër fu ñu weesu dal dootuñu ko laalte loolu moo ko ci lam ñim kon nag bu yàlla defee tey ji ngeen ñëwaat fi dañ leen di sant bu baax di ñaan itam liggéey bi ñu fexe ba di ko def ngir jëm Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Abdul Ahad neewoon na Sëñ Tuubaa dindi ci ñu dindi na fi yàqu seytaane loo fa gis mu yàqu rek yàqu bakkan la kon nag ku ne bu bu kenn indi xalaat kenn indi xalaat xalaat bu jubu ci yow nga ne naa ndax mbooloo yu bari looloo ko tas na xam ne kom yëfi mbooloo la boo amee xalaat bu gën a jub itam te la ñu ëpp am beneen xalaat dafay da ngeen da ngeen nangoo bàyyi sa xalaat na diisoo mënta ñàkk alxuraan na ko santaane bu demee ba ca bu mujj ba nag du yéen du man sëñ bi képp am dogal bi képp ku fi nekk di sëñ Tuubaa itam loo dugg nam nga ci am kon ñu ngi sant bu baax di leen gërëm وجنة لسالك مريد وجنة